ruñu ci ñoo war a génnee message bi mag ñi doon nëbb ku la wax ne jigéen mooy sëy ba jur lu baax waxuma dafay fende mais man gëwma loolu te ñàkk gëm gi nag dama ko gisut ci ak alxuraan man gisuma ko wax nga dëgg man fa laa ko si yar bi la rek awraane ne kii lim gëm man li ma gëm a baax awma droit boobu intellectuel nanguwul loolu mais man gëwma ko mhm. mooy yonantu bi ñu koy tagg dañ ko ne tun xalu min bin ila rahimin jugoo di transformé wu ci ndigg yu baax di jëm ci waayu sell yi jigéen bool la man mënumaa togg ci neex ma yàgg ko ci bool mu am suuf mënul nekk waaw salte dëgg la ca xajam ba rek la mm. yow dama leen la dénk ko neuf nga def ko doom su baaxee baax na su bonee bon góor mooy jur am na benn wàllu yàlla jàngal na xam-xam doomam liggéeyoon na fii ah ci télé bi su ko Ahmed Aidara papaam su ko soxnaa mi tooñaan da daan wax doomi teraanga yi may leen ñëw ngeen dem ajana xoolal wax ju rafet jooju dalay soññ doomi teraanga yi may ma ñëw ajana may may leen ma ñëw dóor leen ngeen dem ajana mais c'est bien imaginel tey doomi xaj ji doomi xaraam bi mu ni nga mën a mel sa ndeye ko fi sëy ñun Saalum dañuy xasee doom ci yaay mm-hmm. sa bàyyi mun na la mu wax la sa erreur yaay mais loolu day traumatiser xale bi saa yu demee daf dara mu essuyer daf naan am ah, mënumaa tekki suma papa mu ne suma yaay na mais sa jëfu yaay moom la concerné concerné wul doom ndi ne ji ngëm àttewul noonu donc tey sëy pour man Sofia dina doon yomb ñun ñu xam ñooy ñan ak lan leen bëgg su fekkee diine leen gëm neen dem jàngi diine jëfee li diine wax ci sëy ñu noppale ko bu dee ne diine c'est très compliqué sévère aadaañu arrangé ne ti jabar ju nangu aada ak cosaan mais bu dee da ngaa moderniser ni man demal si benn américain bu dara saful nga xam ne da ngeen di saagawante sax te du métti ndax méttiwul interprète saaga métti saaga méttiwul de tiimal chinois di ko saagande day rey rek xamut li parce que interprète wu ko mal yonentu mu ne boo ooree ku la saaga na ko andaa saw mu dawoor lii la la wax nga répondre kon méttiwul tey mun nga am jabar joo xam ne sax da ngeen séq saaga wante la benn meer ñëw wala paay sekk mu xeewi ñëw taxaw na la doo jur lu baax de saaga sa jëkkër ñun duñ ko daan def seen affaire génération bii boo ñu saagawul sa mënuñoo daanu lu neex aw ngay saaga saaga si kanamu xale yeeg yooyu tamit loolu te tuddaguma xale bon waa ba ma bu compliqué nga ne jabar laa nga indi fi xale fa nga toll bañ lay saaga ngay daanu lu ci yooni xale ban waa ah, loolu moom wax tamit nag Ah. dama la ne saaga sax. oui alhamdulilah chaque jour waa nee na chaque jour ñu saaga ñu. <laughs> bu nelawul sax du seen affaire du heure xale. heure kii la ku yeewu yaa ko yëg. bokk sa wërsëg la mu ngi mel ni borom xam-xam mën ngaa liir loo du wax. mën ngaa liir ci xam-xam doo ko yë da nga doon nelaw yeewu fekk paa mère bi di bàyyi. te daatal rek sa yoon parce que mënoo koo tere. donc expliquer la que ñun pour sëy yi normal laat maa ngi ko expliquer mosoon naa ko fi benn yoon. ma ne musoon naa dem benn conférence in Johannesburg sa li ñu wax mooy sëy jullit ñi gën a gaaw a tas ci àddina ndax ah dañuy nekk jullit ba pare waaw duñ doxaane lislaam duñ tiyee lislaam hmm. dóor sa jabar ci lex amul ci benn téere du yoon yàlla daf la duloo ngir su jigéen ji amee jom parce que am na koo xam ne tamit soo ko noonu niira dootoo ko defate day am ci xale sax mhm. boo ko gëddee na ko téyal suur na la nga koy jox même loolooy ngor ak jom noonu la dóoree mais jàpp di weeq am da ngay xàcc lii bu muy bu mu mhm. mais lii xam nga saful mais fa l'islam dooree da ngay wax ak moom su baaxut wowal xaritam wowal sa xarit demal woo ko màndu du moyu ko ci kaw lal bi fii lépp procédure la woo ko ne doo su dee yëpp doxul sant ko mu toog de ci kàpp yi leen la dóorloo xam nga su néewee da koy yokku mais kanam gi boo ko dóoree mu ñaas ku koy takkati lislaam dafa sóoraale sa même après divorce mais bu dee nag dóor nga dóor boobu hmm? nan ma ne dóor bii nan la loxo bi fii fii la doo koy yëkkati mën nga jël benn bant bu ndaw boo xam ne du dagg yaram du dagg yaram bi waru koo dagg de parce que yaramu jigéen la dafa sensible bant bale quoi da nga ko koy tàpp da nga ko koy tàpp hmm? mais ma expliqué la ko bu dee yow procédure yëpp jaar nga ci islam mu ne la wooteel seede nga nangu ne mënatu leen a sëy ngeen tàggoo ci rafete te su ngeen tàggoo bàyyi ko ci kër gi ñeenti ak fukki fan du togg du fóot du paase te doo ko tënk dee paase dañ ak reer nim ko bëggee fam ko soxlaa nam ko soxlaa nga koy indi leen bu fekkoon ne liggéeye ko jàpp ba yiy jeex ak salaamaaleykum mais maaleykum sa résenir nga xool ko muuñ rek sëy ba dagganaat na hmm. waaw muuñ dagan na. ko ngay ñaangal nag. bu fekkee dëgg la même bu fekkoon da nga ko ne may naa la baat. non so moom laay wax dama ne. même boo ko mayee baat warul génn kër gi. may bi nga génn tey Sénégal la mais du l'islam. waaw du l'islam loolu moom. yaa ko war a bàyyi ci kër gi bàyyi boobu nag. daf lay mayaat une dernière chance. chance waaw xam nga man suma maas gi bon dañuy jàpp jigéen di la liggéeyloo ba nga futti. dëgg la dootoo léegi nag ñeenti weer di Eh, eh, quatre mois dix jours. Mhm. ku ko relax. dëgg yàlla bu dee bu dee race bu baax nga di nga ñëw. waaw mais de l' autre côté nag Cheikh. li xaaral léegi soloonu mhm. islam may na la sens. moom ndaw sa attaqué. nga nangoo seq ak moom amatul seede da ngeen di continuer mais nag dafa se. amul amul wuyu amul seede kenn du seede non non non mais am la. Mhm. mais doxal leen. islam mu ne wéyal leen ba ca kanam. su ngeen demee ñaar nag. foofu daf leen di leer na bu ngeen ñetteelee. amee waat jëkkër man ma ami non man moom mun naa ñàkk am jabar waaw. mais islam pour wan la procédure bi mu jaarale fase sax dafa métti. sori. ban jigéen nga xam ne koo xam ne boo waxee moom tête à tête du dégg xaritam du ko dégg du dégg sa xarit du rus ku mel ni benn benn imaam nangam wala si nangam déggul ñoo ñëpp nga tongoo ko ci kawlal bi déggut. nu ko dóorub lislaam déggut fase ko bàyyi ko ko bàyyi gi quatre mois ba tey déggut kooku ba koo gën mm-hmm. ndax li ngeen naa moo tax tas solution la ci sëy waaw mais jigéen gi naka la mën a punir naka lay kiyee moom punir jigéen pour mu punir jëkkëram dafa am moo gën moom moo gën a sévère la nga am jëkkër ju mel ni man nga xam ne duma ma julli boobu moom fase otom amul sa neexle jëkkër juy màndi di xëlëf-xëlëf yi di daanu ñu naan bari Cheikh Ahmed fase automatique jëkkër juy sàcc maanaam si gàttal lépp lu am ne bu ko nekkee ci société bi ñu xeep ko mhm. te teg si soo si amee doom doo ci ndam islam may na jigéen ji mu oote waxtaan ñu may góor gi taan su amul solution ñu tasee bi force mu dem yoonam parce que ku ñu war a garder la mhm. l'islam joxul jigéen cinquante pour cent daf ko jox plus de pourcentage mhm. bu dee ne yow amagoo jëkkër lu war ci yow den ko war a def même boo passé dix-huit ans boo amee jëkkër sa jëkkër a war a def lépp te jabaru milliardaire man mii pauvre su ma ko amoon maa ko war a jox dépense foofu ma yokk lu ci bokkul même l'islam bi ñuy wax ku fi takkoon jabar yaa koy ngoro yaa def la mais boo takkoon jabari Europe da ngeen di séddoo luwaaye séddoo gaz seddoo lépp loolu Europe la mais du l'islam benn moo tax da nekk ak ñoom kenn di partagé ñuy jël seen alal di ko yónnee. ki ñu takk Sénégal loolu du la mais du l'islam moom laay wax ni ah. loolu Europe la. kii di wax benn Amérique la mais du l'islam parce que tey Sofia xalaat nanguwul tey. ma takk Sénégal fii jabar. weer dee ma taxaw na ko indi deux cent mille. quatre cent ñuy fay lu waay xel nanguwu ko. mais Amérique. dangay ngay fay gaz fay nangam fay même jigéen ji yaa ko may mu liggéey. yow la fay bi war su ko neex ci mbaaxam ak nopp bi mu la nopp mu jàppale la mu jàppale la waaye su dee da nga war a topp procédure du l'islam da ngay woo sa jabar waxtaan arnak la na ko ah man kat l'islam a teg hmm? waaye xam nga ni dëkk bi mel hmm. dama lay ñaan ci sa droit yow hmm. nga teggil ma lii mu may la ko mais loolu yëpp riba moo ko moom yow mal ma d'accord jërëjëf Cheikh Ahmed Cissé waaw ñu daal di tourné euh, moo tax jigéeni Europe yi ak àjjana leen jëm ah ñoo mhm. fa demee weekend passé fekk naa leen fa ñoo leen fay jiitu fop yu <laughs> Sénégal yi. même même même même góoru sénégalais yi nekk Amérique yooyu. noonu leen ñëpp àjjana la njëm. du ñu dem fenn noonu leen mel. wet ci ndaataa talax mu di ci rajax talax rek. ci buur laa jëm. buur géwal. oui ñu la neexee kay. dundee ni la neexee rek. en tout cas thème bi développé nañ ko mercredi passé. Mhm. vraiment mu nekk thème bu am importance ñu bari waxtaan ci. Mhm. tey jii tamit ñu ñëwaat